bii di soxna Fatou Seck moo doon teextu ki nga xam ne mooy président muy maître Madické Niang nañ diglu soxna Fatou ay kàddoom lii la wax. ñu ngi préparé incha allah pour dem Mbàkke teertu Madické euh, comme ni ko ñëpp di préparé rek ci suba ba léegi ñu ngi ci gis nga ma nii boo ma xoolee rek xam na fi mu ne dara mënatuma ko jeexal naa tàkk mais. danañ ci dem daal incha allah rabbi ba ba suñ kemt lay kàttan ndax am nañ ci Madické yaakaar te taalibe la te murit la bu kenn naatable wut ak muritam mm, ñu fa yéene koo gunge incha allahu rabbi 2019 mm, suñu borom may ko ndam mu dem pale rek bu neexee yàlla ba tey mu jaral ñëpp mobilisé waaw loolu moom wax dëgg li ma laaj ñu bëree bëri dinañ ma ko laaj ndax man maan duma dara duma kenn yoruma tus waaye nit ñi ñoo ma bëggal seen bopp wax dëgg yàlla ma am nit ñi lool wax dëgg di leen ci sant nag di leen ci gërëm ndax yaaba mii ma ñëw fii tey fekk si ko dañ ñoo boole rakkam bu góor moo ma boole woon moom ku naan Xaadim Njaay wax ko li ma bëgg yaakaar naa boobaak léegi yàgg naa at la.